yéen a ngi teewlu info 221 ñu xibaar leen nag loo xam ne rek dina neex ci xol yi rawatina nag ñi nga xam ne ñoo doon liggéey ca Walfadjri gii di Serigne Saliou Guèye ak Pape Ndiaye doonoon ay chroniqueur foofee ca Walfadjri ñu tegoon leen ndoxoon ay bés nag jot leen bàyyi ñu ñibbi seen kër ñu leen di fàttali nag kii di Serigne Saliou Guèye mooy directeur de publication bu yéenekaay bi di yor yor moom mi la nag daal dinañ ko teg loxo ginnaaw rek ba mu yëkkati woon ay kàddu jëmale ko ci wax ci nguur gi waaye itam nga xam ne ab taskatu xabaar la nekk ab chroniqueur foofee jawal fi yàgguloon nag ci kaso bi ginnaaw bañ ko jëlee woon Dakar mujj nañ ko yóbbu fale ca Sébikotane moom mi leen nag eh, jot nañ ko moom mi lee jot nañ ko libéré rek moom ak kii di saal Saliou Guèye rek ñu ñibbi seen kër a fàttali nag ñi di taskatu xabaar yi ba jamono ji ñu ne jànkonteel ay jafe ci seen bërëbu liggéeykaay kaw Pape Ndiaye sa taxoon na ñi coordination des associations de presse fas yéene amal ñaar fukki fan ak ñetti ci weeru juin bëccëg yoo xamante ne benn taskatu xabaar di ci liggéey loole nag bokk na ngir ñaawlu doxalin ak jëfin bi nga xamante ne ñu ngi koy teg ci kaw taskatu xabaar yi ndaxte jamono ji jafe na lool ñoom taskatu xabaar yi ñu daal di nag def seeni liggéey mbokk yi mu nekk ab xibaar boo xamante ne yàggoon nañ ko sàkku rawatina rek lu jëm ci kii di Pape Ndiaye mi nga xamante ne nag xaw na yàgg lool nag ci kaso bi